la Sombène egsi na mi maa ngi lay nuyu di la ziar mbaa yaa ngi ci jàmm mbaa du poussière bi dalaa tàmbalee sonal. dafa mel nii de dafa mel nii mm. ça commence à affecter un petit peu tout le monde bonjour mm. à nos chers téléspectateurs et bonjour à la team qui est euh, aux de de l'équipe aujourd'hui mm. on va gagner ce match inchallah ñu ngi noonu ayca ñu tàmbali ci météo bi donc comme euh, annoncé euh, hier poussière bi moom mu ngi euh, commencé progresser ci réew mi ça arrive par la vallée du nord principalement ci bët gànnaar réew mi et c'est en train de progresser petit à petit jàpp leen ni que euh, avis bi il va de aujourd'hui ba vendredi incha allah donc nuage dense euh, la ñu nar a euh, xaarandi euh, sur une bonne partie du territoire hein, excepté l'extrême sud du pays foofu noonu poussière bi dina fa yéex si en tout cas mu ngi noonu c'est ce qu'il faut retenir de la météo et puis le vent tamit ngelaw li di souffler ci les régions côtières principalement et puis vent légèrement soufflant plus faiblement ci à l'intérieur des terres Euh, ci partie bii nii lay doon donc à 20 kilomètres heure environ et puis 35 kilomètres heure euh, bulletin bi joxe sur la côte toujours et puis ce matin donc toujours de la fraîcheur matinale boo xamante ne moom la ñuy yeewoo fan yi euh, avec des températures yoo xamante ne 16 degrés la tàmbalee ci Louga tey 21 degrés pour Saint-Louis 23 à Dakar température maximale 17 degrés ci Kolda ñu ngi ko fay xaarandi en tout cas boo boori Kédougou moom 18 degrés mooy doon température ba ñu foy koy euh, enregistré au niveau de la nébulosité maanaam lépp lu soxal euh, asamaan si niir yoo xamante ne dinañ muur euh, jant bi comme démb rek même même journée qui est au rendez-vous avec de la poussière Euh, qui sera là bien présente donc le masque bu leen fàtte masque bi euh, pour ñu am ay allergies tout ça masque bi rek mooy mën a protéger voies respiratoires yi malheureusement ñu xool digg bëccëg bi noonu naka la nar a demee jant bu fës sur la totalité du territoire ànd ak toujours ces voiles nuageux qui peuvent devenir de temps à autre euh, beaucoup plus denses pouvant également euh, cacher le soleil maanaam nëbb euh, jant bi pour les températures 28 degrés ci après-midi bi donc genre température yi euh, les températures dites clémente 27 degrés euh, à Louga euh, on est en dessous des 30 ans ba tey 31 pour Thiès 30 à Saint-Louis 33 Fatick Pékhu Géej gi alizé maritime yi donc ñooy souffler foofu donc ça atténue la température et puis les alizés occidentaux yi occidentaux pardon yi may wax fan yii yëpp c'est euh, l'armatan donc qui va avec la poussière qui nous arrive du désert donc ci bëccëg bi tàngaay boo xamante ne la dafay c'est une chaleur sèche ànd ak mbooye bi da ngay fóot léegi weer mu. mu daal di. di di wow koŋ c'est ça. ñu ngi noonu 36 euh, à Tambacounda en suivant Kédougou également 34 pour waa euh, Ziguinchor 32 degré boori Matam on voit bien que température yi elles sont en baisse euh, consécutive nii de jour en jour il est peut-être un petit peu temps ci seddaay bi lañu lañu wax ni que lañu nekk mais bon mi ngi noonu. ñu xool donc la marée 7h41 fi mu ne ni géej gaa ngi euh, fees nii 13h33 en suivant marée basse 20h06 tamit dinañ am. li ñuy wax la marée haute géej gi dafay daal di yéeg pour les pêcheurs ngeen euh, topp xibaar bi rek ba xam puisque dafa ngelaw ça fait plusieurs jours là euh, houle bi mën na daal di euh, fa. Hmm. revenir gànnax gi ñëwaat gànnax gi merci soxna Naat <laughs> heureusement que <laughs> donc voilà euh, la houle peut se former les pêcheurs donc bàyyi leen xel loolu puisque euh, comme il le dit Alaaji Malick géej gi amul i bànqaas. te du ko mës noonu c'est ça. mooy xool jant bi donc 7h40 quelle heure est-il soxna Naata. s'il te plaît 7h31 minutes donc dans 9 minutes ci la jant bi nar a fenk 19h03 mu daal di làqu toujours à l'ouest du pays donc on se dirige vers euh, la Côte d'Ivoire. ñu xool match bi suñu Lions yi naka lañ euh, ci yenn conditions encore une fois la ñu nar a jouer donc 35 degrés à 17h sachant que Yamoussoukro c'est au nord-ouest de de la Côte d'Ivoire donc climat boo xamante ne c'est une zone boo xamante ne c'est montagneux. donc c'est un climat boo xamante ne day diis il fait lourd parce que dafay guus bëccëg day tàng jër et puis À partir de 17h, le taux d'humidité toll aussi 39% et puis ça va euh, à la hausse à partir de cette heure donc dina atteindre ay 100% ci euh, guddi gi juste pour vous euh, mon enfin pour vous démontrer climat bi ni muy ni muy daal di gousser et comment il fait la température ressentie voilà 38 degrés quand même à 17h mais c'est pas grave match bële la ñu joué mm. woon et ndam rek lañ ci am ça va être là mm. même chose encore une ñu daal di féex instant bi on est confiant mais euh, la pression est toujours là quand mm. même on mm. peut être mais ça va aller incha allah mu ngi mm. lañ koy yemale ba ci kanam ñu daal di ko tënk euh, en express à tout à l'heure merci beaucoup mais ba ci kanam incha allah ci météo bi en express alors euh, tout de suite euh, ñu jàll ci destination Sénégal